très compliqué quoi mm-hmm. waaw eh, jërëjëf dañ koy eh, jaajëfal xam naa ne dañuy dem eh, jël beneen actu du jour bi nga xam ne moom it lam ci indi si côté politique la bu baaxee Moustapha ñu jël ko ñëw si les ko les ko moom li mu xatee ci xatam gu njëkk tey moo di ki nga xam ne moo di Ousmane Sonko jamono gi xam ne dañ ko teg loxo wala moom ca kaso naam yéenekaay bi lam ca wax moo di Ousmane Sonko même en prison moo ngi continuer li nga xam ne moo di xeex maanaam xeex bi ginaaw gi nga xam ne di dissoudre nañ parti bi nga xam ne moo di Pastef ba ca mujj moo di dem fee nga xam ne moo ca DGE yóbbante ki nga xam ne moo di mandataire pour ñu jox ko li nga xam ne moo di ay fiches euh, parrainage moom moomee ginaaw gi nga xam ne euh, bañal nañ ko ko jamono gi nag lancé na wala yi nag moo ngi def ay recours euh, malal mu mel Ousmane ginnaaw bi ñu ko tegee loxo booba tey taxul ne ak li nga xam ne yëpp moo nekk di xew bi si Modi moo di DGE bi bañ jox ay euh, fiisu parrainage euh, ki nga xam ne mandataire Sonko taxul ne moom moo ngi continuer combat bi. oui mais je veux dire la direction générale des élections son rôle c'est d'organiser les élections. Mom, mm-hmm. du organe d'appréciation du organe boo xamante ne dafa war a xool lii yoon laak du yoon et cetera pour man on a le conseil constitutionnel am nañ conseil constitutionnel moo war a apprécier certaines questions ku war a bokk ak ku warul bokk pour man ku ñëw di jël fiche parrainage même bu Pawlish ñëwee ne dafa bëgg jël fiche parrainage il faut lui en donner ñu jox ko mais après bu ñu paree bu ñu yóbboo ci ñi nga xamante ne ñoo war a saytu liste yi valable ak yu conseil constitutionnel su boobaa mën nañ apprécier aujourd'hui Ousmane Sonko est dans son droit effectivement de faire recours de faire recours parce que effectivement jusque là mën nañ jàpp ni condamné guñ ko il est en détention préventive les questions pour lesquelles euh, il est poursuivi ne sont pas encore vidées amaguñ ci il n'y a pas une décision qui est tombée sur Ousmane Sonko lui disant que lii lañ lay toppee te lii buñ la ko toppee doo mën a def lii ak laa ak laa donc comme que de foofu pour moi il faut effectivement euh, lui donner les fiches de parrainage. Euh, euh, Cour suprême premier président bi suba mën nañu mën nañ jàpp ne mën na génne décision ndax yaaka ndax yaakaar nga ne dina ci am gain de cause DGE lim ko bañal bu demee foofu non pour moi, en fait jàpp je gagner parce que on ñu le déroulement le processus depuis l'affaire Adjisarbo aujourd'hui on sait qu'il y a une il y a il y a une tentative de d'élimination d'un candidat important d'un politique qui est très important qui s'appelle Ousmane Sonko Ousmane Sonko est quelqu'un boo xamante les jeunes les sénégalais gëm nañu li muy wax ñu ngi koy topp am nañ yaakaar ci moom maintenant puisqu'il constitue une menace politique finalement foog ñu wut ay pexe jàpp naa ni toll du euh, fi jàpp naa ni fi toll nii mënuñu am benn euh, mënuñu awma benn yaakaar effectivement que cour suprême effectivement euh, cour suprême jox Ousmane Sonko Oui, Oui, Alassane. Mhm. combat yi dissoudre parti Pastef tey refus euh, maanaam parrainage Parenas mais taxul ne Ousmane Sonko moo le combat bi. Euh, ban jàngat ngay def si xam-xam bi nga am si walum politique quelqu'un ko hamne ne moo ngi ci euh, kaso amoon ambition en 2024 batay tey ñëm andal àndal way sa xeex ba mais moom mi nekk prison mu mel ni ne la gën a déterminé wu waaw loolu moom jàmbaaram la ah kooku jàmbaar teem la lay bëgg a wax sax moom mooy euh, volonté am xeex bu ki cappaandaw ga mu ngi ci dans son rôle et c'est heureux pour lui ak ay ñoñom pour man lolou lu rafet la parce que mi ngi wane fofu que dafay xeex ba sës fi mu nekk nii comme ni ma la wax yu ci ëpp ci ay ñoñom ak ñu ne xalaat ñun ñu observateurs yi dañ ni amagul benn décision définitive bu ko bu ko tënk pour l'instant ci li ñu gis ndekk mu ngi ci ay procès procès yi pour ñu agagul pour que procès bi mujj mooy bi ne wax ci contumace boobu débat la du ministre bi wala man wala yow ñooy décider juge booy décider en dernier ressort donc loolu excès bu ci malheureusement ou heureusement malheureusement pour lui et pour tous euh, ses partisans mais am ba des daal Sénégal malheureusement euh, dafa nekk dëkk bu jaxasoo wax naa ko sànq ci sama première euh, sama première propos Ousmane il est dans son rôle am na ay avocats yu xarañ ñu ci liggéey bi donc moom day dem ba mais mais mais aussi doyen pardon bu ñu xoolee ay avocats wu Sonko jamono gi dañ leen tere wax bañ Juan Branco sax moo leen di waxal.

ci benn dossier. D'après Juan Branco loolu la wax. waaw Juan Branco man dama ko dama ko déglu à 100 pour cent. Mm-hmm. déglu une partie déglu wala am sama xalaatu bopp am sama xelu bop, parce que Juan Branco moom la limite man, naa ko jur. <laughs> donc ma am na lu ma xam peut être France mais Sénégal mosuma gis daal parce que man maa gis barki que ca euh, Ciré Clédor Ly di wax régulièrement barki démb Bamba Cissé mi ngi wax bon et puis comme li nga wax wax bi sax est ce que am solo li am importance pour man mooy jëf que avocat yi am nañu ay pexe mën déposé déposer comme ça a été le cas demb ñu dem chor dem Cour suprême def ay recours pour man loolu moo ëpp solo wax gi rek pour wax amul njariñ parce que wax gi rek pour wax du tax nga am nga am ndam donc pour man daal li ëpp solo mooy am xam-xam am xalaat am xel def daal fi nga war a jaar bañ ci boole sax coow lu bari parce que finalement sax coow lu bari lii xëy na sax kooku bataille d'opinion lay nekk mais sur le plan pratique ak euh, loo xam ne daal mooy ëpp solo. mooy def loo xam ne ëllëg justice bi da lay jox ndam. Mhm. Euh, fu ma laat DG euh, pour wax euh, da yow candidat nga wala doo candidat tey ndax mënuñoo wax ne. dafa wàññil conseil constitutionnel liggéey bi nga xam ne moom la waroon def ndaxte moom moo war a wax ne Ousmane Sonko candidat la ndaxte gis nañ Khalifa Ababacar Sall sa waa Wade naam condamné dañ leen condamné woon mais biñ demee joxoon nañ leen li nga xam ne moo di seeni fiis ngir ñu wuti yi maanaam li nga xam ne moo di pare parrainage beneen bi mooy administration bi jamono jii bu nekkee ne DGE amul droit def ko ndax mënuñoo tiit suñu administration wu réew ndax demuñu ba di ko politisation ou administration c'est ce n'est plus un débat c'est quelque chose de très connu et c'est quelque chose qu'on vit au jour le jour ministère même bois palais est-ce que le palais doit être un lieu de rencontre effectivement de la coalition Benno Bokyakar c'est-à-dire ça écorche la République parce que la République est un patrimoine du peuple, ce n'est pas le patrimoine d'un parti. Le palais est une institution de la République et non d'un parti. Si on invite les gens au palais pour régler les questions du parti, ça veut dire qu'effectivement, on est en train de politiser l'administration. Donc, ce du euh, plusieurs fois ba justice bi perception bi ci ba ci sax buñ lay fal ñaata passation de service nga fekke mo am ay teug ki fecc mo am folklore bo xamantene ce sont les militants qui viennent mm, di contane ci liñu effectivement, effectivement euh, fal seen nit etc sol couleuru parti bi etc. etc donc yoyu ay effort la et c'est très important que dans les recommandations pour les proches, pour ceux qui aspirent à diriger ce pays-là, mm-hmm. que les citoyens soient exigeants pour voir effectivement un nouveau type de président bi ñu soxla lii lañ koy sas dañ koy nangam ak nangam ak nangam boole la politisation la dépolitisation de l'administration parce que effectivement parce que bu l'Amérique, Mon rek moom moo sénégalais ici, ci une perception nous comprendre l'état parce que jusque là il n'y a pas une séparation il amul une séparation c'est-à-dire on ne distingue pas l'état du parti lol nak ay effort la la société civile warna continuer di ci et puis on doit être beaucoup plus exigeant par rapport à ce qui nous dirige mais par rapport à ce qui aspire à nous diriger parce que nit nous le liñ lan lu feeñ ci ngoro li lu nuyo ci lu nuyo ci ngoro bi feeñ ci sey mhm. bi c'est pourquoi puisque c'est déjà c'est déjà fait pour ñi nga xamantene ñoo ñuy jité il nous faut nous préparer pour les futurs les futurs les fu les futurs présidents les futurs euh, nit yi nga xamante ne dañuy am une certaine responsabilité par rapport à la gestion des ressources publiques. Mhm. Euh, jërëjëf xam naa ne dañ koy euh, mujjee actu mooy las las quotidien moom it li mu xëtee si xëttam bu njëkk naam démb la woon waaye da di information boo xam ne mën nañu wax ne day ñëw ba tey la xalifa général des mourides Serigne Mountakha Mbacké jamono gi fat wala def la ko waral moo di fee nga xam ne moo ca Touba da ji bàyyi xel bu baax si école wala ñi nga xam ne jamono gi ñoo fa fas yéene samp li nga xam ne moo di daara bu ñu xoolee Madiambal Diagne si génnam gu mujj bi mu def si livre bi mu jëmale si Ousmane Sonko aji Sarr lam ca wax moo di mën nañ wax ne fi ñu toll nii ginnaaw gi élection yi weesoo en 2019